Lesson 10 Some useful expressions and phrases. Dama sonn. I am tired. Dama gëmmentu. I am sleepy. Dama xiif. I am hungry. Xiifuma. I am not hungry. mar. I am thirsty. maruma. I am not thirsty. dafa tàng. It's hot. tàngul. It's not hot. dafa sedd. It's cold. seddul. It's not cold. baal Excuse me. naa la. You are excused. Fan nga jëm? Where are you going? Maa ngi jëm kër ga. I am going home. Maa ngi jëm école. I am going to school. John mu ngi jëm marché. John is going to the market. Mu ngi jëm ci bitig bi. He is going to the shop. Jëmuma bureau ba. I'm not going to the office. Dégg nga wolof. Do you wolof? Waaw, dégg naa wolof tuuti rekk. Yes, I speak wolof a little John déggul wolof. John doesn't speak wolof. Bëgguma français. I don't like French. Bëgguma kafe I don't like coffee. Jennifer dafa bëgg làkk wolof. Jennifer likes wolof. Damay jàng. I study. Damay lekk. I eat. Damay liggéey. I work. Moom He doesn't study. Moom lekkul. She doesn't eat. Ñoom liggéeyuñu. They don't work. Damay nelaw tuuti. I am having some sleep. Liggéeyuma léegi. I don't work now. Dama bëgg noppalu. I want to rest.